bien que mën nañoo wax ne dañuy wax ne maître bu yàgg ci école inspecteur war na faa ñëw pour inspecter ko. yàgg na ngeen wax ne léegi ñun école Mawlana Cheikh Ibrahima muy bokk te école Baye du dara du dul l'islam rek l'islam rek lañ bokk ñun ñëpp tey bi loolu lañ leen doon wax bés bu nekk tey nag boo ñëwee loolu daf koy confirmé di ñu dëggal loolu di leen présenté ki ñëw fii ñi ko xamul mooy naafiqul rasmi li hadratil ibrahimiyya mooy ki nga xamante ni mooy porte-parole bu hadara Mawlana Cheikh Ibrahim ak fu mu mën a nekk si àdduna bi mooy surtout Mawlana Cheikh Ibrahim moom mooy ki nga xam ne boo ko gis rek xamal ne l'islam moo ko yendu fu mu yendu l'islam moo ko yendu fu mu fanaan l'islam moo ko fanaan bés bu nekk man damay wax ne ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim ci gàttal bëgg Cheikh Tidiane bëgg nit ñu baax bëgg Cheikh Mahi yow kii ñu bëgg xam nga ko man léegi bu nekk loolu lay wax loolu dama ko gëm yaakaar naa ñëpp gëm nañ ko foo ko gis mu dem rek xamal ne lislaam dana fa am ndam dañ koy ñaanal yàlla yàlla bu dal fanam kooku nag moo ñëw si koñ bi ñu teg te ñun buñ wàccee bu koñ rek dëgg-dëgg barke teew na si koñ boobu loolu moo tax ñu def lu nekk pour mu ñëw Canadien sant na waaye Canadien ñi mu sant yëpp liggéeyam si daaw kon nag ñu fexe ci bésu bu tedd yëpp ñu wax ko itam ñii lañ nekkal lii yu baax lañ am ay nit jullit lañ yoo xam ne yu baax lañ yàlla dimbale nañu ak résultat yi xalaat ñu bu baax problème bi doon nañu sonal waaye bi ñu demee ba xam ne. bàyyi yéen pour yàlla lislaam bu wér la lay yàlla ñu bëri xam nañ ne dëgg-dëgg ñun ci lii lay nekk. day nekk sëriñ bi ñëw confirmé kon nag ñi ñooy suñu sëriñ ñi ñooy suñu bàyyi te ku bëgg a indi rek indi bàyyi mel nii ñu daal ñi ñooy suñu yëpp moo tax sëriñ bi ñu lay dalal di la wax marhaban marhaban marhaban qawluha bi nafsi mujtahidu lakinnaha bi ixtilaafi naasi taqtaribu wax bi benn la wante nag wax bi wuute na si nit ñi marhaban bu nekk rek ak kañ ko wax ñun nag ñu koy wax marhaban di wax marhaban di ko wax marhaban si néew bi yàlla bi ak si koy bi wax bi daal du gudd wax baa ngi doon ñu daal da daal yu maam lañ bëgg a nekk yu dëkk te loolu moo nekk julli yu dëkk te loolu lañ bëgg sëñ bi ñu day ñaara nag ñëpp dañ ñaar yàlla guddal fanam may ko ndax bu ko mayee fukki fan ak lépp l'islam dana am ndam ndax fu mu def rek yóbbu fan yi mu ndam l'islam yàlla ko yàlla yàggal ci loolu kon kàddu daal moom tey salaamaaleykum wa rahmatullahi ak mboolem liggéey nga xam ne ñu ngi teew ci bés bi ñu ngi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nee na àjjuma moo gën a màgg ci bés bi mooy bés bi nga xam ne ci la yàlla jël aadama ci la ko dugal ci àjjana ci la ko génnee sax ci àjjana àjjuma bés boobu saa si am na saa su ci nekk soo xam ne julli bu dëppoo moom di ñaan yàlla mooy yàlla namul na ñu bëri nee nañ mooy saa su ñu nekk ci bés waaye am saa soo xam ne borom na ci sax ay muslim ñu laaj doomi Abi Musa ne ko ndax sa baay waxee na la ci saa ci àddina waa ko ci yonent bi mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtu bu ngi man taxawee ci jumaa ji di xutba àjjuma bët mu jullee saa soosu saa su nangu ñaan la lu ci jaamu ñaan yàlla nangu la xam ne saa sooy si sax na kon bés la bu mag bi fa yàlla tabaaraka wa taala te bu mag bi fa yàlla rek moom moo mag xam ne ne añ moom si liggéey la moo tax mu ñoo yàggal ko waaye mu ñoo ñàkk ñoom moom imaam rafetlu taxawaayam bi nga xam ne moom lay taxaw fii ci Dakar liggéey ci diine ji tasaare diine ji liggéeyal fayda bi ci askan wi loolu laa laaj rek askan boo xam ne jëf leen mbokk yi yàq ko jëf leen mbokk yi taxul nit ñi am ci jàllale ñun loolu rek lañ soxla soxla ne waaye lislaam rek la ñëw pour nit ñi xam. jullit rek la ñëw pour nit ñi yokk bëgg ngeen di rek sa xaalis la moo ko tax a jóg kon nag képp ku taal te nekk ca wane exemple bu gën ci moom kenn du am ñaari xel ci yow. moo tax ñu nekk ci loolu ñu nekk ci ndokkeel ñu ngi ñaanee képp kuy askano waaye yàlla dimbale la ba nga mën a nekk exemple boo xam ne yëpp ko gis rek liggéey ñi fa def mooy bëgg yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit ñëpp ñu ngi ci beneen xaj moo tax xutba bi xaj lañ rek waaye ñu jaar ci xutba bi ndax gudd na waaye dañuy fàttali rek benn xadis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci weer bii di ñëw muy weeru tësi ne amul benn bés boo xam ne def ci lu baax gën naa baax fukki bés yi di ñëw muy bés yi tëbës bi xanaa tey la ñaar fan ak la ak juróom benn waaye te am na fan la bu weer tëbës bi teeroo daal fukki fan boobu ba ba na ما من الأيام يوم العمل الصالح فيه خير من هذه الأيام amul benn bés boo xam ne jëf lu baax gën na cee baax ci fan yi ñu dugg si muy bu leeru tabaski dara ba ba ñu dugg tabaski am na ku nekk walal jihaad fi sabilillah ku nekk ba ci jihaad sax ci yoon yàlla mu ne ba ci jihaad ci yoon yàlla lu may boo xam ne dafa génn ak alalam ak njabootam ak lépp lu ca jël si xam nga dara ci kon ñu ngi jublu si ay bés yoo xam ne bés yu gën nañ fexe ñun ci gën ci bés yooyu suñu anam gën ci bés yooyu yeneen bés yi mën nañ cee jaaree nekk ñu gën ba faw dafa tax borom xam-xam yu werante ñu ne waaw bés yooyu moo gën wala fukki fan yu ci weeru koor nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nañ ci seet laylatul qadr bi nga xam ne benn guddee ci koo xam ne moo gën ci lay guddi lu borom xam-xam yi tontu ci loolu ñu ne guddi yee fukki guddi yee moo gën ci guddi waaye fukki bés yi moo gën ci bés yi kon fexe ba fuulu ko fuulu ko ci tudd yàlla fuulu ko ci dimbalante ngir yàlla fuulu ko ci def lu baax وافعلوا الخير لعلكم تفلحون fumul ko ci wax lu baax wa qulu linnaasi xusnan waaye waxal nit ñi waxal lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm àllaaxira booy wax waxal lu baax mbaa nga noppi kon wax benn heure rek la war a génn mooy bu nekkee lu baax bu nekkee lu bon rek noppi moo gën kuy wax na nga xalaatal bala ngaa wax benn waaye dafa wax ne bu gisee yàlla làmmiñ bii ku bii tuuti bii te am doole ndax naa def ci li am ak ci li naa def ci li ñëw ak ci li moom rek moo mën loolu ci ci ci li nga am daf koo defal ay bëñ mu wóor defal ko bëñ mu wóor ba pare may la xel muy xalaat bala wax mooy wax li ngay wax ni bu feesee bu fekkee ne dara lu jëriñ nit ñi nekk ci bàyyi rawatina nag boo xam ne booy wax sa wax yëpp saaga nit saaga nit yàlla saaga nit ñu baax ñi loolu wax sa nekk wax yi jullit képp ku ko mas a def war ngaa tuub dellu ci yàlla ndax man taaba taaba allahu alayhi a def ni nga fexe ba yow bul bokk ci ñooñu ndax amul benn benn saaga nit ñi bokk ci diine si baabul muslimi bu sóobul wa xitaabu bu kufru yooyu ci sulaay salama nee saaga jullit génn topp la maanaam ku ko def passé xeex ak moom weddi yàlla te saaga ko mooy rek la wax waxut nay sëriñ waxut nay bàyyi jàmbur waxut nay kii bàyyi jàmbur léegi nag bu demee ba xew nit koo xam ne balaa kontaan dafay saaga bàyyi jàmbur mbaa bu saaga nit ñi bàyyi jàmbur te boo seetloo dafay saaga sëriñi jàmbur pour ñu saaga sëriñam fekk sëriñam du bàyyam bu sëriñam doon bàyyam dana ragal ko nga dañ bàyyi xel ci loolu képp koo xam ne da ngay askanu ci sëriñ si sa askan bu wér nga bëgg sa sëriñ bëgg gi nga bëgg sa sëriñ wér da nga respect boo àggul ci bëgg sëriñ yëpp da nga àggul ci respect ci sëriñ yëpp ndax loolu mooy nit waaye dañoo war a àggul ci bëgg sëriñ si yëpp dañoo war a àggul ci bëgg jullit ñi yëpp ndax loolu mooy lislaam laa yuminu ahadukum la lan tadxulu jannata xatta tuminu wala tuminu xatta taxaabu yéen bi salaai sallam nee na du ngeen dugg ak jànna fekk gëmu leen te gëmu leen yàlla fekk bëggam gëmu leen ku bëgg nit ko saal ku bëgg nit ko sas kon nañ góorgóorlu xam ne bëggante li ñuy bëggante ci suñu biir ñu xamuñ jullit loolu ci charte la ci gëm yàlla li nga xam ne moom mooy moom mooy sa visa mooy sa passeport pour pour pour pour dugg ci leen yàlla bi nga soxla tey yàlla bi waaye mooy sa visa pour dugg àjjana koo xam ne tim sa baax ci dugg àjjana la yem te pour def loolu tim baax na ku bëgg àjjana yi baax na ku jullit yi bëgg àjjana baax na ku jullit yi ragal safara baax na ku jullit yi bëgg yàlla gën ngaa baax ki baax rek mooy gën a baax lay ndax ñu bëri foofu lañ commencé euh, ñëw ci jumaa ji ngir na sa bàyyi mu naa dem nga demal ci jumaa ji kon ngay dem ci jumaa ji ngir jubóog da nga dem ba passé ko wut ngay dem ci jumaa ji ngir yàlla tax ngay dem ci loolu la mel kuy julli ngir bëgg ak dara dana ba àgg ci julli ngir bëgg yàlla ndax julli ak koor ak yu baax yi mooy sa dox jëm ci yàlla booy dox jëm ci yàlla yàlla moom daw ak ci àddina koo xam ne mu ngi kër daw mooy la koo xam ne mu ngi kër daw mooy la daw moom xaju ci àddina ndax moo wax ne maa wasi'a ardi wala samaai sama asamaan attanuma sama suuf attanuma ويسعني قلب عبد مؤمن waaye xolab jaam bu gëm attan na xolab jaam bu gëm mooy jaam bi def lu baax xolab jaam bi gëm mooy jaam bi daw jëm ci yàlla jaam bi jëm ci yàlla moom la yàlla dëkkoo jaam bi jëm ci yàlla moom la yàlla daw jëm ci moom mooy la yàlla nekk waaye yàlla nekk di ci benn place bay daw jëm ci benn place kon mooy boo doxee jëm ci moom rek yow attan kon nañ góorgóor nañ nekk ay jullit nañ nekk ay mbokk yàlla yàlla defal jàmm defal jàmm suñu bopp suñu jamono defal suñu réew sallallahu alayhi wa sallam tey saa yi naa xaj ba sonn daa fee wu ñu naan xaj wal umrati loolu rek laay jàng ci tur gi fa innahu maa yanfiyaani shahwa zunuba maa yastakiru qabla alxadidi waldahabi walfiddati maa min muminin yadallu yawmahu mu'liman illa qabat shamsu moo xamee ne jàngal nañ la aj farata la benn yoon rek waaye nee na da ngeen toftale bi ngeen ca aj ak kumba ndax dañuy faar dañuy demee bàkkaar yi di demee ñàkk comme ni safara di demee xomaati weñ bu ñuul te maanaam ay loolu mooy ñaar yi gën a rafet ñàkk mooy li gën a rafet ci àddina bi ay lii nii waaye bàkkaar yi gën a rafet ci gëm jëm ci yàlla tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñaar yooyu yëpp aje umra ji ko tax dana daf koy demee ba pare mu tekki ne nit ki du armal ku gëm yàlla du indu armal ba jant soor moom lu may def bi muy soow mu ngi yóbbu ay bàkkaar yëpp yal na yàlla jéggal suñu yal na yàlla nangu suñu yëpp yu baax yal na yàlla nangu def ñuy ay jullit ñoo xam ne bëgg nañ jullit ñëpp tajoon nañ jullit ñëpp yàlla bëgg rek di tabax yi juma di jiite juma di dimbale juma di bale juma di dimbale ñii dundal juma di jàng alquran di jàng alquran di jàng xam-xam di jàngale xam-xam di xee xale yi di jubal nit ñi di tarbiya nit ñi di tàggat jaam yi pour ñu bëgg yàlla tarbiya boobu baax la bu ñuy wax di ko wax di ko wax di ko wax mu féew dara may bàyyi di ko fee mooy mooy fexe ba tàggale jaam beeg bakkan jébbal ko yàlla tabaraka wa taala ci zaahir ak ci baatin

الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله la ilaha illallah إله إلا الله ilaha